bi liggéey bi di door yàlla dogal na moom la Cheikh Amadou Moustapha moom Cheikh Amadou Bachir woo ah, jox ko ndigal mu samp ko ci dëkk ba tey ñu toll ci 42 daayira muy fédération bi ci càmm ñoom soxna Ami Samb présidente euh, effective soxna Soda Samb présidente d'honneur waaye vice présidente soxna euh, May Muna Dieng secrétaire général soxna Fatou Mbeng waaye nag sunu jëwriñ ji tool bi muy euh, euh, doomi Cheikh Mouhamadou Moutada ji nga xam ne mooy soxna Astou Mbacké Moutada nga xam ne wax dëgg yàlla liggéey bu tedd ba mu doon ànd ak way jërëm mu ko noppee gis daf ko fedd ci magam jox ci Serigne Mamor waaye fépp mu dem taxawal na fa soññe na fa ci liggéey soxna jaara ba ca Amérique ba ca Suède ak fépp mu mën doon ci àdduna bi xam naa kon dañuy jox kàddu rek Badiane Ami moom mi nga xam ne mooy présidente effective bu bi mu yëkkatee ak kàddu ba laa ñuy àgg fële ci kër Soxna Soda. waaw maaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waa mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di diital ci nuyoo bi sëñ Mountakha Bachir mii ñu génne léegi di ko ñaanal yàlla may ko fan gudd lool ak wér gu yaram gum yàgg euh, liggéeyal maamam ju baax ji tañ topp koog moom di nuyu nag daa daayira yëpp ñun waa bureau bi. di nuyu soxna May Jang mi topp ci man ak soxna Awa di jiital ci nuyoo bi nag soxna Soodam sëñ Basiru ak soxna Asu Mbàkke mi nga xam ne ba dara dul dara lañ ànd ak ñun ci liggéey bi. di leen xamal ne nag daayira yi yëpp mënuñu leen a tudd wante dañ fee teewal daayira yi ci euh, état lig yëpp ndax daayira yi kat ñun leen jiital wante ñoom ñoo yor liggéey bi kon ñu ngi leen di sant ndax tey jii lii ñu am ñoom ñoo tax du ñun ñii ndax ñun doonuñu ci liggéey bi dara ñoom la kon ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla ñu yàgg ci liggéey bi tey yàgg jiite mbooloo te yàgg ñëw ànd koog ñun di ñu di ñu joxe maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu bàjjan Sooda Samb mi nga xam ne itam ci liggéey bi ci loxoom la dale woon te booba ba léegi bàyyiwuñu mi ñuy teete di ñu gunge. di ñu dimbale yàlla na fi yàgg te wér sàmb asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu maa ngi jox kàddu gi secrétaire général avant meeg si soxna Astou mu ñaanal mbooloo mi ba keroog ñu egg soxna Soda secrétaire général lu eh, fédération bi Fat soxna Fat Sile Mbeng 42 ñoo constitué li nga xam mooy fédération soxna Jaara bi ne ci Touba nu ànd tey ñëw jébale seenu liggéey Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir asalaamaaleykum wa rahmatulah taala jital ci nuyoo bi suñu jëwrin soxna Astu Murtala soxna Sooda mbake di ziar mbooleem sang yi nekk ci fédération bi yëpp soxna may Munatu mbake soxna may maa jama di ziar nag présidente soxna Ami Samb Adja Ami Samb mi taxaw fii soxna may Jeng soxna Awaloo ñu nekk itali soxna Aminta Lo soxna Ami Cissé di ziar mbooleem ñu nekk ci bureau bi yëpp soxna Sophie Dieng soxna Dieng ba ndongo mi ngi nii taxaw ñi ngi sant bu wér a wér sant yàlla bu baax ne jërëjëf Cheikhul Khadim yàll nañu yàlla nangu suñu suñu taalibe ñu dalee mu Cheikhul Khadim ñoo ngi sant ñëpp di Adja wax rek du ma si siwaat présidente jotaay bii du ñun duñ ci dara ci liggéey bi mbooleem mi nekk itaali présidente yëpp mbooleem nord bi ba sud bi ba lekko ñu ngi leen di sant di leen gërëm fédération yi euh, fédération yi nekk ci biir fédération yëpp mooy sous fédération yëpp bu ma nee taw Touba Toscana Touba Touba Rimini ñëpp a ngi ci biir ñu ngi leen bi sant di leen gërëm di leen sant xam naa ci kanam danañ gën a yaatal wax tey ji liggéey bi li ñu jox sang bi ak lépp loo xamante ni que dajale nañ ko fi danañ ko gën a leeral incha allah rabbi yàlla ñu ngi sant di leen gërëm yéen ñëpp jërë ngeen jëf. waaw jërëjëf bala ma agsi ci soxna Maymuna mi nga xam ne moo nekk sama ndijoor mu soxna Maymunatu bintu Cheikh Mouhamadoul Mountakha nga xam ne liggéey bi daf ko ànd ak ñun laata waajuram di doon euh, Serigne Touba mu taxaw ci ànd ak mbokki taalibe yi taxawaay bi soxna Astu def mu di ko def fépp fu mu dem taxawal fa mbooloo mu toll nii bala ma agsi ci bàjjan mu ñaan xam naa ma jox la rek nga nuyu mbooloo mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa kër Serigne Touba waa kër Soxna Jaara seen mbokk mu xeebu mu ngi leen di nuyu lu bari te di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi siyaar bi soxna Soda Mbacke waaye di nuyu soxna Assou Mbacke sunu bàjjan sunu lépp di nuyu soxna Ami Samb di jël nuyoo bi di ko toj ci loxoom. waaye di ko mën a seere ni ko sëñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Mbacke bu waxee man koo seere lool nag ci lépp ba ma borom dogalee ma dem fa ba léegi ci lu baax rek laa fekk. lu baax rek ak pas-pas ànd takku liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal soxna jaara loolu nag moom loolu rek la soxla ña nga ca nag bu baax di ca góor góorlu bu baax ci ni leen ko sunu borom sante ci ni ko sëriñ Tuubaa bëggee rek ca lañ ko nekkee kon nag loolu moom dëgg yàlla sant nañ ci bu baax yàlla di leen ci ñaanal sunu borom fépp fu ñu bëgg mu egg fa rek yàlla nañ fa sunu borom eggale ci barke Seexul Xadim jërëjëf sant nañ bu baax jërëjëf sëñ Cheikh. soxna Astou euh, nu kon nag euh, taatoon kàddu yi soxna Astou mu Cheikh Mamadou Moutada ni ma ko waxee léegi muy taxaw taxawaay bi am solo wax dëgg yàlla fépp foo way juróom euh, tegoon tànkam mu àgg fa wax dëgg yàlla di fa yaatu liggéey soxna jaara bi àndati ak noonu yàlla nañ ko yu bare bari sa mag yu baax ji jitaayub Serigne Touba bi yàgg lool waaye nag di jaajëfal sunu jëwriñ ñun waa diaspora muy Serigne Mamadou Cheikh Mamadou Moutada gàcce ngalaama lu fi juróom jërëjëf Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi ci wér di ñaanal Serigne Mamor mi suñu jawriñ yàgg fi ci wér tey nag ñu ñëw nañ daan ñëwee ci di siyaare Serigne Mountakha comme nañ ko daan defal ci Serigne Moustapha Bassir euh, muy ñëw ba egsi ci Serigne Mountakha tey ñu àndoon ak fédération bi yëpp ci njiitu soxna Ami Samb ak soxna Soda Samb ak mboolem fédération bi ànd ak soxna Ami Samb ñoom. ñu teew fi ñëw ci Serigne Mountakha di ko jox sunu addee ci Porokhane ak di ko joxaale sunu addee ci euh, Serigne tubaab mi fi ne mi fi nekkal. tey nag ñu am loo xam ne mboolem siyaare bu ñu daan def an mu ne defe naa tey moo ci dàq tey moom mboolem siyaare bi ñu daan def yëg nañ ci sunu bopp ne siyaare bi ñu daan def moom mu tey la gën a neex. kon nag dañuy ñaana Serigne Mountakha rek mu yàgg fi ci wér di ñaanal waa daayira soxna jaara ñoom tam lii ñu man tey bu déwénee yàlla nañ man lu ko ëpp ndax gis naa ne an mu jot day gën di yokk lañ daan jox sëñ Muntaxa dañ koo yokk lañ daan jox Serigne Touba mi fi nekkal Serigne Touba dañ koo yokk kon dama leen di sant rek di leen gërëm di ko teg ci loxoom soxna Amy Sam bàyyiwuma kenn di nuyoo tam waa jamaay bi maa ngi leen di sant ci njiitu euh, moodu Mbaw ñu ngi leen ak Serigne Bass Dia ak Moustapha Diang ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant maa ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu jërëjëf Serigne Touba. waaw ah, jërëjëf mbokk yi kon loolu mooy kàddu yi bàyyi ko ci staff bi nga xam ne mooy staffu fédération daayira Maam Soxna Jaara Touba Italie ñu ngi leen sant leen gërëm di ñaan Serigne bi yàlla na fi yàgg ñu yàgg ko fa fekk yàgg ko jëba liggéey bi mu nangul na ko barke Soxna Jaara asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. عاطى المنة قبلي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة